asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi e, njabootu maam Cheikh Anta noo ngi am mbégte di ànd ak yéen ci jataay bi nga xam ne yéen a ko gisandoo mu di njabootu maam Cheikh Anta gi àndandoo ci teewaayu Serigne Djili Mbacke mi nga xam ne mooy xalifab Cheikh Mahamadul Mamoun Mbacke ñu ñaan sun borom gën ko fee yàggal gën a ak wéram mu ànd ak mbooleem njabootu maam Cheikh gépp tàmbalee ko ca buntu kër alaaji Serigne Tako Mbacke ka nga xam ne moo ne ca bopp ba tey jii di Serigne Mbacke Anta mu ànd ak njabootam di njabootuk Serigne Mor ak njabootuk sëriñ Asfale eh, ñu ànd itam nag ak buntu kër yi Serigne Modou Mamoun yëpp. tàmbalee ko ci buntu kër eh, Serigne Abo mi nga xam ne moo di rakkam topp ci moom ñu ànd ko ak njabootuk Serigne Modou Roqee gi nga xam ne moo di seriñ Serigne Modou Mamoun ànd ci teewaayu Serigne Cheikh Anta Mbacke xalifa Serigne Modou Roqee mi nga xam ne mooy jëwriñu seriñ bi yore kàddoom waaye itam ci teewaayu njabootuk Serigne Amidoun Mbacke waaye ci teewaayu njabootuk Serigne Mbacke Astou njabootuk eh, Serigne eh, Amdi Maymouna Mbacke njabootuk Serigne Makhtar Mbacke njabootuk Serigne Omar Mbacke waaye njabootuk Serigne Abdourahmane Mbacke njabootuk Serigne Dame Mbacke ak njabootuk sëriñ Abdou Mbacké ak ak njabootuk sëriñ As Guédé ak njabootuk sëriñ Mamor Sikaab benn buntu kër desut ci buntu kër yi sëriñ Modou Mamoun yi njabootuk sëriñ Abdou Khafour itam ñi ngi fi teew àndandoo kon mën nañ ne mbooleem buntu kër yi sëriñ Modou Mamoun yi àndandoo ndañ ak buntu kër alaaji sëriñ Tàkko ak ñi nga xam ne ñooy seexi kër gi tàmbalee ko ci kër sëriñ Mor Fati ture jaar itam ci kër sëriñ Modou Ndiaye Diop jaar ci kër alaaji Ibrahima Dia jaar ci itam kër sëriñ Massamba Gueye eh, mbala eh, ak mbooleem seex yi e ñoom ñëpp àndandoon nañ tey jii ak Serigne Djily Mbacké ñëw yeesalaat seenu njëbbal ci mun Mountakha mbake mi nga xam ne moo di xalif général di kulu ñaan suñu borom gën ko fee yàggal lool te doole ak wéram waaye ànd nag nañ ko baaxoo ci mbooleem buntu kër yi maam Cheikh Anta yi na maam Cheikh Anta jaayante woon ak Serigne Touba ànd ak moom noonu la sëñ Djily ñëw tey jii fop mbooleem kër borom gaawaan yëpp tegaat ko ci loxol Serigne Mountakha wan ko ne ko rek na sëñ gaawaan toppe woon Serigne Touba lañ fas yéene àndeek yow lépp loo digle ñu def loola lépp loo xam ne tere nga ko doon ci seen ndax euh, na ma ko waxe woon euh, takkoon na ak laxasaayam euh, fop ab soy jox ko Serigne Touba ne ko ñaas ma bañ xam ne maag yow duñ ay doomi baay yaay sang bi man mii maa di maalaw ba noonu la Serigne ji li def tey ji takk ak kaalaam ànd ak njabootam teg ko ci loxol Serigne Mountakha Serigne Mountakha nangul ko ko wan ko ko nag bég naa ci ndax foofee laa bàyyi ko woon kon rek feddliwaat laxasaay gi rek ñu fas yéene ànd liggéeyal Serigne Touba kon lii mooy teewaay bi nga xam ne moom lañ wut si woon tey jii ci kër Cheikh Mamadou Mountakha ñuy ñaan suñu borom gën leen fee yàggal gën a dolli seen wér di woo mboolem njabootu maam Cheikh Anta gépp ñu àndandoo topp ci ginnaaw Serigne ji li liggéeyal Serigne Touba na ko mag ña defe woon na ko maam Cheikh defe woon na ko Serigne Moudou Mamoun defe woon na ko doomam yu baax yi defe woon ak Cheikh si Serigne Cheikh it wax na ni ñëwut ci njaboot gi itam ñi fi teewut am nañu njëkkoon a ñëw ñi ci desit ñoo leen fi teewal ndax Daaru Salaam moom kër maam Cheikh genn kër la benn néeg la maam Cheikh Anta Serigne rekk la amoon ndax magam ji mu amoon di sëñ Mbàkke Anta la ca xew digganteem ak Serigne Touba. mu xamal Serigne Touba ne ko. mu xamal Serigne Touba ne ko. nun ñaar mënuñoo bokk nekk. nun ñaar mënuñoo bokk nekk jamono. kon nag kon nag. yow yaa ma ëpp njëriñ ci nit ñi. yow yaa ma ëpp njëriñ ci nit ñi. kon nag naa dem bàyyi la fi. kon naa dem bàyyi la fi. loolu moo tax maam Cheikh Anta. loolu moo tax maam Cheikh bi sëñ Mbacke Anta demee. bi sëñ Mbacke Anta demee. mu wëlbatiku. mu wëlbatiku. jébbal léppam Serigne Touba. jébbal léppam Serigne Touba. am ngontam. am ngontam. akum xëyam. akum xëyam. ak léppam. ak léppam. akum njabootam. ak njabootam. kon nag njabootug maam Cheikh Anta kon nag njabootug maam Cheikh Anta di ko dàmb tàmbalee ci sëriñ Modou Mamoun la ko tàmbalee ci sëriñ Modou Mamoun jaar ci kër El Hadj Sëriñ Tàkko jaar ci kër El Hadj Sëriñ Tàkko jaar ci kër sëriñ Ibra Ndar jaar ci kër sëriñ Ibra Ndar jaar ci kër El Hadj Daam jaar ci kër El Hadj Daam jaar ci kër sëriñ Ibra Soutiam jaar ci kër sëriñ Ibra Soutiam jaar ci kër El Hadj Sam jaar ci kër El Hadj Sam jaar ci kër sëriñ Moustapha Ceytu jaar ci kër sëriñ Moustapha Ceytu jaar ci kër sëriñ Cheikh Thioro jaar ci kër sëriñ Cheikh Thioro jaar ci kër sëriñ Abdou Gora jaar ci kër sëriñ Abdou Gora ñëpp ñëpp mel na ni teew nañ mel na ne teew nañ fi ndax benn lañ ndax benn lañ te mënuñoo tàggoo te mënuñoo tàggoo maam Cheikh Anta du ko seetaan maam Cheikh Anta du ko seetaan Serigne Touba du ko seetaan Serigne ko seetaan kon nag ñoo leen fi teewaaleel kon nag ñoo leen fi ñaan gi it noo ko bokk ñaan gi it ñoo ko bokk ñu ngi sant ñëpp ñu ngi sant ñëpp waa Daaru Baaxum waa Daaru Baaxum waa waa Saña Xóor mbooleem ñi nga xam ne mbooleem ñi nga xam ne waroon nañoo teew te teewuñu waroon nañoo teew te teewuñu ñu ngi leen di sant bu baax di sant bu baax a baax xam ne noo leen fi teewal tañ xam ne it ñoo leen fi teewal na seen bu baax na xel dal bu baax ñaan Serigne Abdou Khadir ñaan Serigne Abdou Khadir ci barkeb Serigne Mountakha. ci barkeb Serigne Mountakha. mu yàgg a taxaw. mu yàgg a taxaw. sëñ Mountakha yàgg fi. sëñ Mountakha yàgg fi. ñu yàgg koo liggéeyal. ñu yàgg koo liggéeyal. sëñ Mountakha rek la ñu am. sëñ Mountakha rek la ñu am. ndax am sëñ Touba rek la ñu am. ndax sëñ Touba rek la ñu am. ni ko sëñ Mountakha waxee léegi nag. ni ko sëñ Mountakha waxee léegi nag. noonu rek la demee. noonu rek la demee. la fi nekkoon démb. la fi nekkoon démb. du fi jógee. du fi jógee. maam Cheikh Anta fi nekkoon. maam Cheikh Anta fi nekkoon. jaay mbokk jaay li mu bokk suñu gaawaan lépp. jaay li mu bokkoon ak sëñ Touba lépp jëndee koog taalibe jëndee koog taalibe ñun ñii itam ñun ñii itam njaay moomee njaay moomee moom la ñuy yeesal si moom rek lañ doon yeesal si waat te noonu borom waa kër borom gaawaan gépp te ñun ñëpp waa kër borom gaawaan gépp àndandoo jërë ngeen jëf yi li sëriñ Cheikh Anta wax mat na matali na li mu wax itam mooy li am bunti kër yi kër borom gaawaan yëpp ñoo fi teew ñi ñëwul am na fi ñu njëkkan a ñëw ñi ci des itam ñun noo leen ñëwaaleel waaye ñu xam ne dara xewut jàmm rek xew saa bu fi kilifa jógee saytaan dana ñëw nuyoo si su boobaa nag ku ko fay bis boo delloo da am gàcca nu bëgg nu dàq nu ñëpp seytaane te génn suñu bopp génn suñuy njariñu bopp dàq suñu intérêt bopp te jiital suñu sëriñ gaawaan mi nga xam ne mënuñu koo séddoo te faw nu bokk ko mbooloo luñ mënta luñ mënta luñ mënta séddoo te faw ñu bokk ko dañ ko war a rafetal te di ko waxtaanee damay wax ne man mii rek misaal laa ci man maa nga jóge ca Mbakol la ma rawee ña ma fa bàyyi ñu ne ca tool yi sëriñ Gaawaan rek la te loolu moo walaabal pour ñun ñëpp nag gannaaw nu mënuñu koo séddoo nan ko rafetal ndax yëf yi damay wax toujours ne yëf yi di nguur yëf yi diine la diine nag kenn du ko xëccoo lu bari ci lu ñuy xëccoo foo ko fekk fitna rek la amaluñu benn njariñ nanaante te nekk benn te xam ne sëriñ Gaawaan moom bi mu fiy nekk nekk sëriñ Touba. Euh, doxe woon nag Serigne Touba doxin woo xam ne ba Serigne Touba Serigne Touba di séddale la mu doon séddale kenn ëppale wu ko ca dara warulu ko lu may pas-pasam xelam ak jomam Serigne Gaawaan moomee nag tey mat na ay junniy junniy Serigne Gaawaan muy nun ñii fi teew kon waroon war a fexe ba liggéey ba mu bàyyi lan mu yóbbu ko fu gën a kawe fa nekkoon te bu ànd nekk benn danañ ko mën bu soob yàlla wasalaamaaleykum wax lépp wax nañ ko li am solo daal mooy nun noon xam ne ay bokk lañu kenn mënuñoo tàggale fu fa yéeg ba àgg fa ci yàlla yi yàlla la fa àggaleeg sëñ Tuubaa kon nag dama bëgg nu bañ a xuloo bañ a xëccoo bañ a xeexoo te def suñu bopp benn bañ a nëbbonte ndax fi mu ne kuy xeexit xeexoog noonu suñuy kilifa ngay xeexal kon nag noonu jéem a nekk benn ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf.